dégg nga li mu wax. maa booy yow yaa ngi. yow wuyu wuyu na wuyu na wuyu baax wuyu ma baax na baax doo teg sa loxo. gannaaw waaye sama kanam bi muy tëj. si poche di salga di poche taraani dégg nga li mu wax dégg nga li mu wax baa booy yow yaa wul wul ma gi wul ma gi wul baax wul ma baax yi baax doo teg sa loxo waaye sama kanam bi wul ma gi si poche di salga di poche taraani waaw dégg nga li mu wax. waaw waaw kay. dégg nga li mu wax. baaboo yow yaa wax. yow eh. eh. wuy wuy ma wuy baax wuy ma baax yi baax doo teg sa loxo. gannaaw waaye sama kanam bi muy tëj. wuy ma gi. si poche si poche bi nii sànq. si poche taraani bi léegi. waaw dégg nga li mu wax. dégg nga li mu wax. baaboo yow yaa wax. Eh. yow wul ma wul ma wul baax wul ma baax ngi baax doo teg sa loxo waaye sama kanam bi ma ngi sa